yëmbal mooy borom Kër Massar mooy borom benn barak mooy borom Caaray Pikine bu jigéen ñëpp jug bu jigéen ñëpp jug kii lépp la mënee tëlawul dara ma ne lépp lay def lépp lay def lépp lay def foo ko jàpp xaar mu ñëw rek jur daanu rek mbooloo mi moom du moom la xool bee rafet kii xale bu ndaw na ko tardaloo ci yoon xool bee rafet bilaay bi may neuvième bi incha allah te yàlla na ko yàlla defal am jàmm incha allah. Boy Diop 2. si kanam tuuti ngeen soo xam kan mooy Boy Diop 2. Sen leneen la barke maam Serap Fall. man ma 3 minutes 3 minutes rek. waaw. waaw yëmbal yëmbal. yëmbal waaw.

Thank you. ñoo mën ñoo doole. kii fetal sax mi nga doon dugg. yaa moo ko ñaanal. soo waa ngi ñëw xaaju léegi. xaaju léegi léegi léegi. loolu seewu seewu mooy loolu. seewu daa am. yeneen fay. non graaw de. graaw ẹjọ́ bóyá kò ní òbí. No, no, no. That's that Yeah, yeah, yeah.

ndaysan mbokk yi wure wa dem na këng waxi mak dem na dañ taali bàkk war na mbam mbokk yi tay bis bin ñu xaar ñuko ko daan xaar ay bis mom yag ñukoy xaar ndaysan ci ay heure mbokk yi arbit bi lan na ñaari mbëri ndax pare ngeen ginaa bi mu leen waxe li lamb nangu ak li lamb bañ mbokk yi jeex jam suñu càmmoñ bo jop de suñu sunu jor ndaysan mbokk yi fallu Ndiaye le promoteur numéro un tey moo ñu woo fii ci bir stade bi ñu ngi lew to ñom ñaar la révélation ñuy bëri ñaari xale yi nga xamante ni ay ndaanaan lañu kii bàyyi ko ñaari tali NCB kii bàyyi ko yëmbal benn baraak Kër Masar ndeysaan ñaari xale yi waxante na lu ne ndeysaan ñu ngi Leewtoo mbokk yi ndeysaan ci teewaayu saa baa tey moom la ñu tuddi bés ndeysaan ñu ngi Leewtoo ñoom ñaar jeex jàmm sànni na benn coup waaye Edmond Ndiaye moo frère Alaaji Giwoon Ndiaye mooy sa baay ma nga ca yëmbal sama waa ji maa ngi lay nuyu bu baax ndeysaan ñu ngi lewtoo ñoom ñaar laa ilaaha illallah ñoom ñaar ñu ngi damante ay baaraam Diop 2 Diop 2 Diop 2 booy jeex jàmm sànni na benn coup ndeysaan ñaari xale yi ay ndaanaan lañu laa ilaaha illallah ndeysaan jeex jeex jàmm mi ngi bëri xale boo xamante ni mësta régg mu ñul moom Diop 2 nga jiital Diop de wacc na ba tolo ak mom mais boy jeex jam neysan taxaway am baxna trop ci digg enceinte mi nanan la mbawar mbawar yee ko topp ñu ngi ci ginaawum neysan ñi ngi damante ay baram jeex jam ak job de jeex jam ak job de jeex jam waaw waaw neysan oh wa ñaari xalé yu way tey ñaari ndaanaan a ngi bëri waaye Fallou Ndiaye le promoteur numéro un ndax xam nga li nga def ndax xam nga ñaari xale yi nga boole ndeysaan lii mooy lamb oh jeex jàmm jeex jàmm ak Diop de jàppante nañu laay laa Diop de da jeex jàmm bañ na waaye Diop de fi mu téye dafa baax jeex jàmm bañ na jeex jàmm bañ na laay laay la laa Diop Diop de daan na jeex jam laay laay la laa nee na day suuf ndeysaan Diop de daan na waa na jël bu rëy ndeysaan mi ngi def lu rafet ndeysaan dem na ci supporters yi ndeysaan da leen di jéggalu waa supporters yi ngi koy tàcc lii mooy lamb lii mooy lamb waaw waaw waaye lii mooy lamb waaye supporters yi nanu roy ci ñoom waaye si si xoolal supporters yi di tàcc Diop de supporteru jeex jam yi ñooy tàcc Diop 2 waaye lii mooy lamb lii mooy lamb. waaw wuy loolu ñoom ñaar fair play rafet na. gërëm daanaka daan la mbër ya. sama diggante yàlla sama ma daan la yàqal la dara nga ñëwaat. jeex sa yoon jeex ma la su la la dara jeex ko mais wuy ma lii lan la nekk xala dëkk dëkk wër ma. benn baraak. tey jum waru te Modou barki Seexul Xadim man anaan laa. mais Modou sama bëre mënoo ko xam. sama bëre. mënoo ko xam. tolluwaayu nga ko. Fall man xala laa de mais ji koy mbëru mag laa yor. xala laa Modou mais ji koy mbëru mag laa yor. général Malika. Bilazer fils de Balla Garga 2. Malo Seras Ama Baldé Bib Diop. lan moo tax lan nga def ba ñooñu ñëpp nekk ci sa ginnaaw lan la. moo damaa yaru barke Alxuraanu Karim man du ma manqué de nit du ma tooñ nit du wax nit lu ko neexul ñëpp man lu ma lu ma nit ëppale nangul naa la ko lu waay am yéene naa la ko man Modou du ma yéene nit lu bon te Modou soxoruma Modou yàlla ñëpp am jàmm. secteur bi nga nekk làmb développé wu foofu bu baax. Diop 2 lan la bëgg. Diop 2 li fi grand mi nekk ba taxaw fa Diop 2 dépassé ko barke Seexul Xadim Modou. mu ne bi nga ak jeex jàmm. mais Modou da jàpp ko lu tax nga jàpp bëgg a imposer sa imposer ko par force sa doole. meilleur loolu bëgg naa naa wax sa staff bi rek mais Modou damaa bëgg yow meilleur lutteur man maa ko jël man Diop la 4 combats bi 4 victoires ah, ak ma ak ak ñi ma daan ak manière ak manière bi ma daanee bëgg naa loolu après nga wax si yow def si plateau wax si. Modou man damaa war a doon champion sama yaay amul kër Modou damaa war a jëlal sama yaay kër Modou booy kenn du ma si daan barki Alxuraan parce que sama yaay amul fu mu dëgg Modou ñu doon luyee te man te man jàmbaara bañkat laa ba ma demee ba xam ne affaire yi dëgër na damaa bàyyi jàng Modou barki Alxuraan ak kërim dem liggéey yi liggéey bi dëgër Modou ma ne man jàmbaar laa direct góor mooy daw sama yaram ma du mbër mais Modou man xam naa ne mbër ma dégg lamb dina ma dégg ñi aw ma seen fay ñi ñoom la lépp ñoom la man du ma dërëm man Modou su ma dara Modou yàlla alaaji alaaji gay naan mu samba di ngero oh. mi jingu mama jam dina daw nu mbaro maro maro mar pari yo ile ile ide de de de de de lambu cosaan imam la bëre baax góor day dangi daan la ñu daan la bëre jëlu jëlu di ŋaayu bii ñoo ko moom bii ñun ñooy baroom yéen ñepp yéen ñepp ñepp doomi réew mi ngeen ñun ñooy jëkkal cosaani maamoo yéen yéen yi jëkkal cosaani maam lamb jëlu xiiroo ŋaayoo barki dem mu njaay drapeau en ses couloirs ngeen xam ni fii ñun ñoo ko moom lamb jëlu du mais nuyu naa la mais noo gisee làmb ji tey. waaw sant yàlla bu baax yàlla tey ma waaw macha allah. macha allah bi daa doon maa ngi yaa moom fekk dafa naay. waaw kër yaa moom waaw kii dama ko xàmmee de mais waa ji dama ko xàmmee de. doomu géej waay nuyu naa la. maanaam doomu géej waay nuyu naa la. waaw waaw. fii de Balla wala doomu géej waay. moo ñu war rek. Look at it. 啊，没错，没错，那边的好多模特儿，肯定的嘛。

Armonia. King ak Tampi. Catalina. Catalina. Kiev Katarina. Katarina Sia. Sori Zena ba ñëpp. xale bi King Basso. Katarina na ko ñëpp ñaanal jàmm. ak gën a jàmm dina ko jaajëf ko ba. Waaw. Waaw. Waxal. Thank you. les hommes du CNG sont là toujours là ndeysaan président Maysa Ndiaye Cheikh Sarr sama grand mon frère nuyu naa la nuyu naa leen ndeysaan le sous-marin est là am lu muy waajal mais mosal si waa Iba Kane waajal. oui moom bàyyi problème mu Iba. waaw ah, may ma looy waajal. Iba waajal ma dara yow sama waay nga lu ma nekk soo ko xam nga ko. may ma waajal. ma ah. ñaanal ma rek yàlla baax na. temps dox guddi. ah temps yaa dox guddi. non bu teg dox. Assane Ndiaye boobu. mais Assane Ndiaye. waaw waaw lii yaa lii yaa ñu ko tàmbaloon mais lu tax mu koy xëy rek mënatuñ ko am. lan la léegi ñëw léegi ñëw incha allah. mais yaa moomoon espoir lu tax gars yi mag mu si yoon espoir lan la. non non ñi ngi ñëw xam nga mënoo tëgg ñëpp. waaw mais ñi ngi ñëw ak espoir bu neex. espoir bu neex ñu ak BM ak yeneen yu doy waar. mais lu tax yow sa bayre Iba Mar Diop la woon rek mën a toog <laughs> lan la. non non bayre moom fépp la rek. waaw. xam nga dari moo amuloon daaw mais ren dina am incha allah dina teel a ñëw. dina teel a dina teel a jóg. am na yu bare sax. mu bëri yàlla baax na mais maa maa ngi lay ñaanal arène national bi nga raase ko amiin yaa loolu rek laa lay ñaanal ci combat espoir yi nag incha allah espoir yi ñoo ko yor espoir yi ko yor mën a ba lii budget bi mënul sax cinq millions ñoo ñu ngi ñëwaat bala ñoo màggali bu yàlla defee jàmm ñu amal déggoo ñu nañ dañ ko taxawal mais titre bi kan moo ko jël titre roi des roi des espoirs kan moo ko jël mais nag Iba Mar nañ ko ubbi rek si ko ubbi woon ñu xam kan moo ko naa leen sama sëriñ jaanaa leen da leen di wax si Sa Touba mi toog Sa Touba sunu xarit la sunu wëllëri la nit bu baax la jakkaar bi la moom la ñu ànd ak kanaa Sa di sunu rakk la sunu xarit la nekk nit bu baax nekk koo xam ne ñoo bokk nekk ci moom loolu depuis carrière ba léegi mais lépp ko xaar ma dem si borom musóor bi borom Alhamdulillah waaw ñu la si baax di ko ñaanal jàmm adama bu

どういうふうに言うの Just. at Boy Diofior jël na coup Boy Diofior jël na coup

Cuối công lên